bàyyi mu taxaw de. nga jàpp rek bëri. waaw loolu loolu loolu la laaj. loolu la laaj waaw. jàpp rek bëri. xeexoo itam. ndeysaan. amuñu fayam bopp. trop di ñaanal monde entier. ma limee damay juum seen participation gis nañ ko caaray géej mënuñu leen a fay képp ku doon supporter Reug Reug rek ñu ngi lay ñaanal yàlla li nga bëgg ci sa xol yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal di gërëm suñu adversaire Bombardier ñu koy gërëm bu baax a baax a lu tax nga ne ñu koy gërëm parce que kan la ak ja ay kallan kan ak ja ay kallan te ku baax la it ku baax dama ne rek bu ko dépassé benn yoon commencement ba fin du ko dépassé jox ko cër te loolu la am ba ni mu fee Bombardier félicité ko encouragé ko yéen it presse bi ñu ngi leen di sant di sant it autorités yi fi ne yëpp di gërëm policiers yi ak gendarme yi ak ñëpp ñu seen fay yàlla mi am fay tay fay yàlla na yàlla fayal leen kontaan nañ trop nag ndam li caare géej lañ koy feete suba ku yéex doo gis gaal yi kon ñu départ jëm Espagne loolu dina doy waar Cheikh Omar mais Cheikhou Cheikhou Kaay Reug Reug waa Caaroy

ay dàllam la ñuy ay dàllam la ñuy seet. ay dàllam la ñuy seet. eh copain jar na sant naa la bu yéen ñaar bokk ndey muy sarak tey lu ngeen ko yebee tey xeexul daa ñëw rek jàpp bëre mu ci mu dal da nekk mu dal rek xale la quoi da nekk mu dal rek quoi da nekk mu dal rek xale la quoi boo bàyyee grand frère ma dal rek mu dal ba nga jàpp muy jëm parce que bëre kan la moo tax quoi kon amoo woon benn njàqare non non tiituma si combat non non mu sam lamb ma tiit war nga daa tiit combat ma kay doon laa gën a tiit ma kay doon rek laa tiit si lamb dama tiit si lamb xalaatuma ko sax kokoy magam waaw ku daan Balla Gaye deux fois daan Modou Lo deux fois ah xam la daan ñoom ñëpp daan lépp waaw Balla Gaye la daan may may ma gaañ Balla Gaye la daan daan Modou Lo léegi le premier ku daan léegi xanaa ñun dinañ bëre ak moom bu neexee suñu borom incha allah. Eh, par force la par force la. Ah, dawul nga ne moo fi neex ñun. maa fi ñëw kenn dootu fi naanatee ñeex. maa fi ne kenn dootu fi naanatee ñeex. loolu maa ko wax kenn du fi naanatee ñeex. cey loolu moomoo loo yëg waxoon naa la ko waaw te ne woon naa leen bu làmb ji jeexee ngeen ñëwaat làmb lay def tey Sénégal dañuy jël si waxam ne bu kaa jàpp kii làmb lay def làmb la lépp lu muy def génnul cadre lamb moo gën a yaru si àdduna sa waay rek gars yi dañ kaa war a jàppale nañ jël tegi ay ay MMA bi muy leneen nañ ko jàppale sa waay moom mooy bëre moo jënal ay supporteram ticket Babacar jël xaalisam ni mu di ko jëndal ay ay ay ay supporteram ay ticket parce fii rek moo fi ne dimanche la ñuy xaar ku daan nañ ko jox. le premier le premier la ñuy xaar ku daan nañ ñu ko jox. waaye yow déggoo li ma Lo Modou Lo Boy Niang la ñuy xaar. la dëgër combat boog rek kum si jàpp ni la def nii. combat waaye